dugg nag ci waajtaayu màggal Tuubaa gi nga xam ne mooy li ñu fi dajale màggal gi moom nañ ko daa defee rek luñ ci bàyyi xel rek mooy fi jamono toll loolu nag suñ borom moo ko indi mbas mi yàllaa xam li tax mu wàcce ko waaye kon li nga xam ne na ko Cheikh Mouhamadou Mountakha waxoon rek foofa lañuy ñuy jaaraat daa waxoon ne ñi seen xam-xam màcc ci wàllu àdduna li leen seen xam-xam jox loolu lañ mën a wax nit ñi mu ne nag ndegam gëm nañ loolaay ci tax a mucc nag nañ ci ànd ak ñoom kon loolu ndigalu sëñ bi kon sëriñ bi ne ne ñuy fàttali bokk jullit yi ak bokk taalibe yi lépp loo xam ne ñi yor wàllu kër docteur santaane nañ ko ci gëm ne mooy tax jàngoro ju du law ndax mu wóor nañ jàngoro ci nga de ko wàll nit loolu bàkkaar la kon laa darara wala diraara da ci dugg kon li nga xam ne docteur digle nañ ko ñoo xam nag détail ya tax yépp sëriñ bi nee na mi ngi ci soññe nit ñi góorgóorlu ci def ci jite fexe ba teg loolu nga xam ne waa kër docteur ñu ngi koy santaane ndax fasalu ahla zikri in kuntum la taalamun fàttali naa ko bu yàggul sëriñ son bu dafa am ko ko wax ci mag ñi ne ko man de Mbàkke ñun de am nañu jaaxle ndax dañoo gis ne seen waajakat dafa bañoon docteur lool te yéen ngeen fonk ko te xamul te loolu xaw ñoo jaaxal mu ne ko sëñ bi ne ko ah moom de daa def bu jàkkaarloo nit nit ne ko ne ko jàngoro bàyyil diw mu dem mu ne ko ndegam mënuñ loola nag ñu doy loo ko te yebal niñ ci docteur ndax sëñ Tuubaa nit ñëw na ci moom ànd ko jàngoro mu ne ko fakka chef naa maa bihi min duri mu tàggoog moom bi peste ba ñëwee ci njaarim tubaab bi ànd ak sëñ Balla Cooro ñëw di ko leeral sëñ bi fekk bañ ko njëkkee wax sëñ bi sëñ bi dana leen wéeri di gi de suñ borom ko fendi waxtu ko jeexale mu jeex tubaab bi ñëw boo fekk na yëf yi àgg na foo xam ne jaaxal na ñëpp mu ne ko dañoo bëgg ñu gën a leeral siñ bi ndax xëy na jàpp ne siñ bi dafa xamut fii fi àgg ndax siñ bi moom booba li ko boroom digg rek la xam ba mu agsee di ko leeral peste bi ni muy rey kum ku jege ni muy faate siñ bi ne leen qul inna al mawta allati tafirruuna minhu fa innahu mulaaqikum tubaab bi bi ko ko interprété mu ne ko damaa yaakaar ne xëy ne dafa desee dégg ko wax gën koo ko leeralaat mu leeralaat ko ko sëñ bi ne ko aynama takuunu yudrikumul mawtu wa law kuntum fii buruujin mushayyada mu ne kon kii moom moo ñun bokkuñ fuñ ne bis sag mu xëy xam le na suñu borom xamal ne ma ne moom mi fu wàcce woon jàngoro jeexal na ko kon ñu ne tam nañ xam ne ay mbindeef lañ rek yoo xam ne foo ko suñu borom yamal rek mu yem fa waaye nag kon lii ci war nga xam ne àdduna ko indi sëñ bi neen mi ngi ciy soñ ñëpp ndax it nee na ñun dañoo jaayante ishtara min al mu'minin anfusahum wa amwalahum bi anna lahum janna jaayante gi ngeen jaayante gi ngeen jaayante ak sëñ Tuubaa nag sëñ bi nee na dëggal nga ñëpp dëggal nañ ko ndax yi fi weesu yëpp firndeel la ko màggal gi daaw bi ñu koy woote nit ñi xamuñ woon la leen cay fekk waaye ñëpp dañoo demoon seen positif ak seen dogo mu jaral leen bu seen bakkan desee mu jaral leen ko màggal gi jàll ñëpp maase ci wane ne màggal gi bayu jënn jeexal ci wér di te mboolem luy wane ne wér di gi amul waroon na ko indi rek nit ñaa ko doon def donte ñu donte daan nañu ko kon loolu xam na ne yàlla moo dox suñ digg moom ci barke suñ Tuubaa bisub xasida bu mujj bii bi Cheikh Mouhamadou Mountakha santaane nee ne ñëpp jàng xasida na mu ko bëgg dama ko diglee loola itam gis ngeen ni ko ci yàlla sagale Sëñ Tuubaa ni mu ci wanewaati boppam booba kaay jege woon junni kaa par bis kon loolu li ñuy wax mantiqiyan xel mënu ko xalaat waaye boobu moom gis na lu nit ñi gisut ba mu ko santaane fi mu nii yàlla na gën a jëm kanam waaye ay téeméer wala téeméer yu topp la wax kon mi ngi wàcc kon ñun lu ñu def rek dañ koy def ngir war koo def waaye lu ñu def rek yaakaar la yàlla lañ ci yaakaar ak doyloo Sëriñ Tuubaa kon na xam nañ ne li ñuy def lépp sagale ko sëñ bi sagale ko ndigalu sëñ bi tax ñu du ko def waaye bayit yooyu sëñ bi génne fan yii day wane ne adduru wa an an an adduru wa nafu min arrahmani laysa min albidaani wa suudaani nañ xam ne yàlla képp moo mën a jariñ moo mën a lore wa in yamsuska llaahu bi durrin fala kaashifa lahu illaa huwa wa in yurka bi xayrin fala radda li fadlihi kon loolu doogu googu nit ñi am nag sëriñ bi nee na yëg na ko waaye nañ xam ne nee na ka ko kañ ko séqal muy sëñ Tuubaa gis na ko ñëpp dañoo joxe woon seeni bakkan joxe seen lépp bu ci seen dund yamee baax na waaye kon loolu mooy maa kaana allaahu li yadara al muminina ala ma antum alayhi xata yamisa al xabisa min al tayibi wa maa kaana allaahu li yudlihakum ala xaybi yàlla seetlu nañu ba xam ndax li ñuy wax dëgg la ci ñunam déet bam ñu doon seetlu itam xamoon nañ duñ ci faatu waaye suñu dogg ak suñu ngëm lañ demee kon àll si ne yow noonu bi la xaybi képp lañ demee waaye suñ tuwaay wan na ci boppam kon nag ñi ngi gën a am yaqin di gën a rafet njort di gën a am yaakaar di gën a doyloo Sëriñ Tuubaa ci ne nañ ci yàlla musale woon daaw ren ji noonu lañ ci musale bu suñ borom bindee ne suñu bakkan ca la war desit ndigalu Sëriñ Tuubaa jaral nañu lu kopp te ñun ñëpp foofu lañu war a nekk te muy dëgg ci suñu xol ku ko wax nag te dëggu ci yàlla mën na la caa nattu ku ko wax ku ku du dëgg ci yow bu ko engagé ndax suñu borom nanguwul loolu bu fekkee sa bakkan jëral la ko boo ko waaye bu la ko Sëñ Tuubaa nag dara du la ci fekk na taalibe daa def di dox fii ba xumaag lu ne mënoon leen mënoon na caa fekk daana jël ay satlo yu tàng di ko naan dara leen du wàññi di dox ci kaw yu sàkket loolu xaal la loolee nag lam waxoon ne fa la saxaaba yi defaloo yoyante bi dama jofaay ku ku ko defal la saxaaba yi defaloo yoyante bi mu defalal la yonent bi defoon saaba yi te loolu Cheikh Abdoulaye ko wax kon ñi ngi soññ ñëpp la jiitu ci programme bi nag mooy première safar bi li ci sëriñ bi daa santaane ca commission bi nga xam ne mu yor wàll mbala mi te sëriñ Cheikh mu sëñ Latif ko bis boobu ñu ngi ci soññ ñëpp ndax bis la bis loo xam bisub jaayante la bisub xidma la itam di ko ànd ak sëriñ Cheikh Jëmb mi nga xam ne moo jiite mbooleem njëbatu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp ak mboolem Baye Fall ak waaye mboolem taalibe suñ tuwaay ndax bu suñ Cheikh Jëmb jiitoo rek taalibe yëpp tàbbi nañ ci biir kon ñoom itam ñu ngi leen di soññal ñëpp suñ Cheikh war na faa dem ci sëñ bi ci ndigalul sëriñ bi ngir soññ leen ca ndax keroo dem nañ fa ci liggéey ba waaye dafa xaw guddi ngir fàttaliwaat leen ko waaye la sëñ Moustapha wax rek moo ci am nee na toogate ba sëñ bi di ñu soññ ci mbale mi ak ñàkk jom la ci ñoom kon ñoom fekk na ñu jekk bonop waaye ñu ngi ci soññi bi yëpp te ren lay gën a jafe kat ndax dañ daa dañ daa bay di buub waaye ren da ngay ndox ba noppi door a wëlbati ko war a setal kon loolu itam nañ xam ne leneen lu dikkaat ci jamono la ba ca dolli ko waatit mooy njàngum alxuraan bi nga xam ne ci premier safar bi lay tàmbali sëriñ bi santaane woon ko ci li waaye mi ngi joxe waa ndigal bu premier safar tàmbalee. penc yëpp fu ñu ko mën di def ba bisu màggal ga ñu di ko def di ko def addiyee rasulullahi di ko def addiyee Seexu Xadim na ko kilifa yu jëkkee daa santaane loolu Serigne Mouhamadou Xaban Mbakke mi nga xam ne ñu ngi koy ñaanal suñu borom dëgëre ab taxawaayam ginnaaw boo xam ne magam magam ju baax ji Serigne Mamor yoroon na ko te yoroon ko yoreen wu rafet boo xam ne adduna sépp ko seere bi mu fi bàyyi ko sëriñ bi joxaan ndigal sëriñ Modou Xaban mu tegawaat ci loxoom ñu ne ci gannaaw yi ñëpp ànd koog moom kon sëriñ bi jox na ko ci ndigal mooy itam mu ànd kook mboolem rabita bi nga xam ne ñoo ne ci dëkk bi ak mbooleem ñi nga xam ne ay sëriñ daara lañ sëriñ bi ngi ci soññ na ne eh, lépp lu ñu liggéey la sëriñ Tuubaa loolaa war a jiitu ñàggum itam sëriñ bi mi ngi ci jox ndigal taalibe yëpp waaye. rawatina nag sëriñ xam surtout sëriñ Souhaïbou ndax ngeen dégg ngeen kàddu yi mu ko seereel ci njàng mujj mii te yàgg na koo seereel sëriñ bi nee na ñu ngi ko ci soññ mboolem ñu mu àndal ñëpp bu première saison bi tàmbalee rek fenn fu ci ne ndax dañ ko daa woote ci jumaa ji waaye ren dafa jege woote bu mujj bi moo tax mu ne comme defoon nañ ko te yàggut kon kenn ku ci ne mën nga koy dundal ci daara ji nga nekk. wala jàkka ja nga ne wala pinc ba nga nekk ñu ànd ko moom ba ba ñetti fane safar yi ñu doo ko tàmbali ci jullikaay bi ci biir loolu itam sëriñ bi jox na ndigal daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitul sëñ Yuusu Jóob bu alfatih min safar ak see rek moom it njàngum xasida mi fii ci buntu kër Cheikh Mamadou Faare ñu tàmbali ko bis bu yàlla sàkk ak kuréel di fa jàng ñu du ko def ba màggal gi loolu it muy lu yees loo xam ne sëriñ bi ren la ko santaane jox na leen ci ndigal te ñoom itam jekk nañ ndax ay soldaar rek lañ ba leen ko sëriñ bi waxee neen leen bu leen ko waxoon tey ñu tàmbali ko loolu lépp nag gàttandoo ko rek ak ñaan ngir daje ceeg tawfeex ngërëmu sëriñ Tuubaa la leneen liñ daa def lépp itam soppiwuñ fi dara ñi nga waajal gan ñi ni ñu leen daa séentoo fas yéene leen dalal na ko suñ kilifa yu baaxee daa santaane conférence yi nga xam ne itam daa nañ ko waa commission communication daa nañ ko def ren jii fas nañ ci fas nañ koy def ci penc yi sàmmonteeg nag fi jamono tollu dañ def dañuy def at mu jot ñu tànn ci njabootu Sëriñ Tuubaa ak ñi njëkk topp Sëriñ Tuubaa ndax ñi àndoon ak Sëriñ Tuubaa ni ma koy faral di waxee ñoo mën a wane Sëriñ Tuubaa ndax kenn ku ci ne ku xam fañ ñu àggoon ci xam-xam fa ñu ci ragal yàlla fa ñu àggoon ci seen digg seen borom ñoo ci ñoom lañ mën a jàngi dëgg-dëgg Sëriñ Tuubaa moo tax ñu war war leen di wane ba ñëpp gën leen xam te am na si ñoo xam ne fañ àggoon kenn xamul luñ toll te nit ñi xamul leen ba na gëni ren ji nag sëriñ Mbàkke Kajoor ngeen xam ni mu demee ci sëriñ bi moom leen tànn ci bokk yi tànn ci seex si sëñ Modou Gueye Jamoo yi ñaari ñoo ñu leen tànn ci seen i ñu def fa ay waxtaan ci ñoom ngir fàttali leen ba taalibe yi gën a jariñu ci ñoom ñoo xam ne Kanz mi ñu am Layeen Fadu bu jàllee itam bokk na ci ndaje yi nga xam daane ko def ndax léeg-léeg dañ daa def colloque international at mu jot ndax loole itam liñ ci jublu mooy Sëñ Tuubaa mooy wane boppam ndax màggal gi damay wax ne daanaka sax lu jar communication néewatu ci ndax moom ñëpp dañ ko xam ba noppi nit ñoo koy waajale seen bopp ñoo ko fàttaliku seen bopp xanaa lu ci ne yëgle lay doon rek waaye màggali kenn xaaru ci kenn kon ndajam bu ñu àggee la 15 safar am na ndaje mu rëy mu ñu ci def moo xam ñu ngi koy def ci mazhabu imaamu Malik ñi koy seq ci borom xam-xam diggante Maroc lañ nekk ak Mauritanie ak Sénégal ak mboolem këri diine yi Sénégal ndax ñëpp ci ngirum imam Malik lañ tënku ñu jàngataat ngirum imam Malik ak li tax ñu sukkandiku ci ak li tax ñu tënku ci ak lim ñu jural te xam ne loolu itam bokk na ci ndigalu Sëriñ Tuubaa ndax moo waxoon ne waaleykum bil malikiya loolu Sëriñ Tuubaa ko santaane woon kon loolu itam ndaje mu rëy lay doon moo xam ne ci xarala yu bees lañ koy jaarale waaye àdduna séppit dañ ko topp ànd ko ñi nga xam ne ñooy kuréel gi saytu loolu ci biir loolu itam kuréel gi nga xam ne taxawaloon nañ ko daaw mu tuddewoon ko fekk ak fagaru mooy al wiqaayatu xayru la al ilaaj loolu nag du ma ne xaddis te ndax wóote yi dafa bari waaye wax ju siiw la rek wax ju rafet la waaye li ci am solo mooy wattandiku moo gën fajoo daaw Cheikh Mamadou Mountakha ngir sédd fi àdduna toll ndax ni ma koy waxee dañoo dëkk ak ñoo xam ne ñoo bokk ak ñoom réew dëkk ak ñoo xam ne ñoo ñoom ñoo bokk lislaam ji waaye bokkuñu ay tarixa waaye ñoo bokk lislaam ji kon nag ñun ñëpp kenn ku ci ne na nekk ca lam nekk waaye na war wormaal moromam na war maalal moroomam lam gëm loola nag bokk na ci li koy sàmmante moo tax lii nga xam ne mooy jàngoro ji kon bu ko ñi dawee te ñi dawuñ ko it du sotti kon day mel ne cim xel sax ku ko ku ko gëmutoon sax ngir sedd àdduna ak sedd aqi dëkkandoo rek war naa tax nga di ko wattandi ko ngir bañ a lor kenn ndax ka koy daw te yow dëggoo ko yaa ngi koy yóbbu fitna ndax mooy bu lu bëggee daw mën naa indi mën naa indi fitna boobaa te loolu bokk ci lii rafet ak rafetal ak dëkkandoo kon kuréel googu itam professeur Lamine Gueye moo ko jiite moom ñëpp xam nañ ko ci xam-xamam bokkoon na ci ñi jàngal ñu bari wàllu médecine ci Sénégal nañ ko defee woon daaw ren ñëwaat nañ siñ bi yeesalaat ndigal ñu ànd ko comité bi sëñ Ousmane ànd ko ñoom ak daaira muqaddamatul xidma bi nga xam ne mooy sayti jumaa ji ak li ko wër ñoo ko ànd ndax xam ngeen ne foofu mooy barab bi gën a jafe ci fi ni mbooloo bi daja ndax ñëpp leen moo leen tax a jóg jumaa ji ànd ko ak commission bi yor wàllu santé bi nga xam ne Serigne Cheikh Abib moo ko jiite ànd ko ak commission communication bi nga xam ne Serigne Abdoul Ahad Mbacké Gaïndé Fatma moo ko jiite ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la làmboo mboolem taxawaay bu mu ci defoon daaw ngir yee nit ñi ak bàyyiloo leen xew fi àdduna toll luñ ca man danañ ko defaat te ñaan suñ borom defalaat ñu ci ndam ëpp lam ñu ci defaroon daaw kon loolu itam ñu ngi koy soññee di fàttali it bala ma génn ci wet googu li wër jumaa ji ñi fiy ñëw daaw am na yu fi xew yoo xam ne indi na ay coow ndax nit ñi léegi yi xew internet yi da leen a fab bi dafa fab bi ñépp ba dañuy dikk ba ci jumaa ji war a siyaare war a teewlu jumaa ji ku fi ñëw waroo sax seetlu ay caméra wala ngay wut ko la photo waroo koo tal dangaa war a am na ñoo xam ne bu masaan ku mel ne suñu affaire bu so fa mu daa siyaare sori na masaan bu kenn dawut sol et dal ci dëkk bi bari na am na ci mag ñi ñoo xam ne bu ñu ma sànn daanaka fi xaw a toll condition boobu amagut fa la ñu toll siyaare fa sëñ bi ngir warmaal ku baax ki kon dugg ba ci barabu Sëñ Tuubaa nag yoru sa appareil di filmé maa ngi ci barabu Sëñ Tuubaa loolu ay teggin fekke fekkewu ko yi ci xewoon daaw ñëpp gis nañ ko kon waa daayira Muxaddamatul Xidma ay jàmbaar dëgg ñoo ci ne ndax ñoom bu nit ñi di màggal seeni kër yi toppatoo seeni gan ña ngi fa bàyyi seenu njaboot ne ci jumaa ji kon ñooña ñëpp war nañoo xam seen taxawaay waaye na leen ci nit ñi jàppale ndax nit ñi itam dangay def junni yu baax def lenn ñoom te ñu fàtte lépp te doomu aadama du mat kon nit ñi nañ leen di jàppale ci kuñ gis xam ne col nga col gu jaaduwut walla mel nga melokaan wu jaaduwut ci war ak soofu ñu fexe ba téye la wala ñu yóbbale ci ñoom ndax kenn nit wala junni nit mënuñoo saytu ay million nit kon lool itam na ci ñëpp bàyyi xel ñii màggat si itam nañ gën a jox xorma jumaa ji xam ne fi ñu jëm seen yaakaar yi àdduna ak alaaxira fa rek kon loolu itam ñu ngi ci soññee bu baax a baax ba ca des it mooy conférence bi nga xam ne waa daaira Rawdu Rayaahiin ñu ngi ko daal organisé yàgg na mën na ñaar fukki at fii na ba nag ne at mu jot ñu di ko def nañ ko defe woon nañ ko daan defe buñ nee suba la màggal gi danañ ko organisé waat ànd ko ak mboolem tari turuxu suuf yi ci réew mi yëpp ànd ko ak jamaayaatu islaam yi yëpp nañ ko daa defee noonu lañ koy defewaat ànd ko ñi ko daa àndal ñëpp am na ay xalaat ay thèmes yu am solo yoo xam ne xalaat nañ ko ren def ko ci bokk na ci conférence yi nga xam danañ ko def ren bokk na ca mooy mbas mbas mi nan la ko yoon war dunde ak Cheikh Mouhamadou Mountakha taxawaay bi mu ci def ndax mbas mi kat xam ngeen dafa gàllankoor adduna waaye ci taxawaayu sëriñ bi ak taxawaayu yoon wi li sëriñ Tuubaa bi noonu wali sewaay yenn taxi day xus samaan feeñ na ci ndax benn daayira bu daa ñëw wàññi ko amut kon nit ñi la Cheikh dax Mbacké waxoon ne may ma nangu xol yu nangoo gën woo wane na ne nit ñi seen xol sëriñ Tuubaa leen ko gaal ndax jamono ji metti na waaye kenn ku ci ne la nga daa def si digg Sëriñ Tuubaa danga ko yokk kon taxawaay bi ci Cheikh mu Mountakha wax ne wax def ak lim ci wane ba ñëpp xam ko loola danañ ci def ay waxtaan wane it yoon wi ni ko dundee ndax xam ngeen ne ministère yu joxe misaal yu bari bari université bi misaal la ci forese yi Touba ci kanam doon def ak yeneen ak yeneen ak mboolem daayira yi ci yoon yëpp isu tarxee seen siyaar ak ay ci des yëpp benn bu ci ne wane na ne ak daayira yi ci biir kër yi sax fenn fu ci ne la nga daa def ñu ngi yokk kon wane na ñoom niñ ko dundee fexe nañ bay yàqut seen diine ndax mboolem lu leen seen suñu borom sant seen digg seen diine ñoo ngi ko sàmmante waaye li nga xam ne adduna indi na ko te suñ borom wax ne atiiwu Allaah wa atiiwu rasuul ulil amri minkum sàmmante ne ñoom moom loolu lépp def nañ ko kon ni ko dundee loolu itam misaal la moo xam ne ñëpp ko war a jëriñoo loolu itam am na ci ay conférence yu am solo yoo xam ne nañ ko daa defee ni ko defee ba ca desit mooy liñ daa def buñ nee suba la gi ci waxtaan ubbi njàngum alxam nañ ko daa defee amatu soppi ko gan daa jóge bitim réew waa Mauritanie xam ngeen ni ñoom daaw dañoo wax wax am solo dañoo waxoon ne mbas mi de jàppoon na ne mën naa dox diggante yoonu murit ak Mauritanie waaye xamuñ ne looloo ko gën a dëgër moo tax dañ leen di jéggaloon sax ndax daaw dañoo wax ne ambassadeurs yi yëpp jéggal nañ leen ndax bokkuñu ak ñoom fu fuñ toll ndax ñoom ci nattooy àdduna la ñuy natt ñun nag fuñ lañ dëgg ma dañoo gënal loola ndax day mel ne eh, ki jàkkaarloo kiy dund ci àdduna suñ borom war ko kën këram ci àjjana kooku taltut àdduna ñu itam ngërëmu suñ Tuubaa dañoo gën a dund kon kuñ rek dañ la koy jégal te ànd ceeg nag jéggaloo ko ci xol bu sedd guy xam ne boo boo waxtu di ko indiwaat waaye ñoom ca président ba la tàmbalee lam daal du ko yokk ña daa ñëw ñëpp dañoo gën a dolli ko kon ñoom itam nañ leen daa terale lépp it defuñ ko dara lu weesu dàkk ci bëgg suñ Tuubaa ngeen xam ne Sëñ Tuubaa fu mu mës am kër rawat tàmbalee ko ci Tuubaa gi fee di kër Sëñ Son bi Daaru Naar lañ ko tuddoon foofa eh, fala fala daal dara naar yi njaarim gàddu naar yi dafa amoon kon dàkk baggu Sëñ Tuubaa lañ ci jublu kon mboolem liñ ci daal xam naa ne ñàkkul yu ma fàtte na dama ko bindut waaye lu ma ci fàtte it waxtaan yi ñuy defaat ci kanam yëpp dinaa ko def waaye ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jaale ñi nga xam ne bàyyi ko nañ fi xam naa ne sëriñ Fallou Mbacké mi nga xam ne moo yoroon kër gii nag mënu su koo ñàkk tudd ndax moom doon na sëkk misaal ci kuy liggéeyal Sëriñ Tuubaa wa'bud rabbaka hattaa yaatiyakal yaqiin loolu la def wa'bud rabbaka hattaa yaatiyakal yaqiin bi liggéeyal Sëriñ Tuubaa jóge ci kër Sëriñ Tuubaa dem ci jumaa ja dee fekk ko foofa kon loolu mujj ko rafet mënu ko weesu waaye nag maamam suñu shahid dama xam waaye juróom wam wala sax bàyyi ma kon day doom yu mag moo tax waaye suñu sahid ku ne xam ne xamoon na taxawaayam ci biir yoon wër kër Sëriñ ci njaq yi nga xam njaq njaareem yi nga xam ne xam nga la ca daa xew njaq lu kiimaan da ci am suñ Seex Fàttak Jóob nett na ko ñépp dégg ndax ndaaya bari woon na motoon na ñett téeméer fi ko ñett saa suñ ko duyee bu ñu xëyee fekk mu jeex nee bis nag am kenn ci magi taalibe yi ku wax ne ci taalibe yi rek ñu daal jaaxle ndax lii daal xamul du tax ak lu ci jublu te nanguwul ko ci naan kooku ne naa ci naan ba xam lu tax ba mu ca naanee ñu xëy ñaq yi ci des yëpp jeex ba mu des boobu. nee na bañ xëy nag sëñ bi woo leen tàng jër dajale leen daane ana ko def lii kooku daal ne maa ko def. mu daal cee teg baat bu am solo mu ne booba miim xewagut mu ne sëñ bi daan ne leen lii de boo liggéey bu doon ko defate ndax waa axlu badri ñoo koy jëfandikoo te soxlawuñ seen wu des kon suñ Tuubaa nañ xam ne lim ñu dig ci àdduna rek mboolem lim ñu dig mboolem lim ñu lim ñu dig la Cheikh Mouhamadou Moussa waxoon bu ma téye woon kaasu kafe mu wóor ma lii kaasu kafe la mu war ma ni kaas kafe la la ma Sëñ Tuubaa wax te teguguma ci sabat moom laa gën a kon loola yëqin la war a doon ci ñun ndax ba muy wax loolu kat mastaa ko fay nettali booba dafa am ku jàng waccaal bihi daariya kal madina barakatan wala kaabata musona kooku mel na ko xaw a sikk sàkk mu ne ko mbaat danga koo sikk sàkk Cheikh Moussa wax ko lii booba Touba ndax mën na ñaar fukki kër ndax bi ñuy def recensement bi Touba ay cent 1978 boo ëpp 3000 kër ñett ñetti junni kër te fi mu nii ci li gën a wóor mën na ñaari millions yu tegal nga xam ne kon moo tax président bi sëñ bi nga koy sant di ko gërëm ndax fi mu ko tegit mooy man dama ci seere ndax li sëñ bi dox seen diggante maa koy def moo tax it bu ma sëñ bi ne sant ko séentuuma ci ku ma ci ngàññi bëgg mooy ku ma ci wax dara ndax loolu amul soxla la ma mooy ndigalu suñ Cheikh Mouhamadou Mountakha te ñi fi nekkal Sëriñ Tuubaa ku fi ma sa si Sëriñ Tuubaa bu sa responsabilité accès ci war a wax doo ci sédd lu naq lu naqari nit ndax nit ñi kenn mënta fexe ba ñu gërëm ridan naasi xaayatun laa tudrak Cheikh Mouhamadou Moustapha bi Sëriñ Tuubaa ñibbisee Tuubaa 1927 28 élection yi jëkk am balees doon xëccoo Cheikh Moustapha moo ko jàppale fésal ko ba ba mu gañe moo ko fal kon ñooñu ñooñu gën fuuf Cheikh Mamadou Fadil ba Senghor di xëccoog Lamine géey fii ci soow jumaa ji ba Senghor waxee lañuy wax ñëpp ngi toog ba mu waxee boo tudd jumaa ji sëñ Fallou ñam kam kam sësal dana ko jël na ko de kon moo ko fal Cheikh Abdoul Ahad ba mu waxee la mu wax ci Abdou Diouf wax ji jaaxal ñépp daa wax seex moo Modou Badara jóob ne ko sama wax jii de jaaxal nañu bari ne ko xam ngeen wax ji lu ko daa ne ko bu li ma wax de bala ko nit ñoon xam ñëpp ñëpp maasa ci bañ ko def daana ko sama kàddu gii de boo ko peese woon ak kàddu bindee fi ci balaas réngi ji ñépp koy diggandoo dajale ak njabootam wax leen ne coow li dafa bari lool boo élection yaa ngi sës xam daan leen xam nga lu indi coow la ñu ne ko déedéet mu ne li ma ne Abdou Diouf dana toog ñu du fi toog mu ne waaye buñ xamoon la ma xam ne kenn du ko nattable ndax xut bu samaan ak buur suñ borom dana ko fal ñeent fukk guddi wàcce ko ci asamaan su mujj si kon koo xam ne sax xam-xam ëggut foofa wala sax xam àgg ca da nga xam lu nit ñi xamut danaa siy netti loo xam ne ñooñu ñu ngay dund sëriñ Abou Mbacke mi suñu mbuur bi mooy xel suñu mbuur bi xam te di jarbaaru suñu Buxaari ak suñu xalimu suñu fàllu dañoo ñëw ji siyaare si suñu Buxaari ba suñu daal waxee wax ja ñuy waxtaan seen waxtaan muur ci biir oto bi bañ accès te suñu Buxaari di ju génne ci kër di julli ji nag leen ko laaj ba suñu Buxaari génnee mel na ku leen di tontu nee na waxe suñu Abdou Lahat ji de ñu bari danañ ci wax ba yàqoo ci waaye buñ xamoon la tax ñu wax ko rek kenn du ko nattable kon ñoom foofu lañ nekk sëriñ Saliou Mbacké président Abdoulaye Wade ba mu koy fal ñëpp xam nañ ne da ko ñaar ba na ko jugal nga wuti réew mi ñaareelu at ma gis ngeen dam ci jëfandikoo li ma la yéene Sëriñ Tuubaa laa koy ñaan kon moom daa waxoon ne nag sama kilifa yi dañoo amoon ndigal wax man nag ndigalu ñaan la am waaye day jëfandiku mu la mu bëgg mu am cheikh mo cheikh Sidi Mokhtar xam ngeen dem doos kàddu yam waxoon adduna sépp ko xam leeroon na adduna yi weesu cheikh Mouhamadou Mountakha moo ko wax ci làmmiñ ñoom ñëpp dégg te man ba ba mu koy wax maa ko njëkk a dégg ne ko demal ci borobu Sëriñ Tuubaa boo demee lañ fa la la loo bëgg nga fas ko fa Sëriñ Tuubaa daal la ko defal kon nag lu ma ci xam ci loo xam ne seere la ndax loo ci xam ne kat doon na lu jaaduwut ñu jëme ko ci taalibe wala ci dëkk bi bu boobaa sëriñ bi nam ko war a bañe ne la koy bañe kon loolu la ko ñëpp xam mu Cheikh Mouhamadou Mountakha weesu na foo xam ne dana wax lu neex nit lépp lu muy wax ngir yàlla jëm siñ Tuubaa tax ak taalibe yi te moom bu dee ñun niti àdduna lañ dañoo manqué dama tadi lu ne mën nañoo dal waaye moom mi fi nekkal Sëriñ Tuubaa lépp lu xalaat weesu na lépp ndax li adduna jariñ weesu na ko li nit adduna mën a mën a li nit li ñu soxlaa nit adduna Cheikh Mountakha weesu na ko moo tax eh, ku baax ki ci mujj gi bi ñu ko waxee ne ko nga doxale sa digg tubaab bi ay nit sëñ bi dane leen sama digg ñoom de kenn doyuma ci ndax ku dul man rek mën nañ la xupp walla ñu xëpp la man nag mënisuma xupp mënisuma xëpp loolu nag def na def na ko ci ki ko fi nekkal waaye nag ci moom képp la yam nag moom fi nekkal Sëriñ Tuubaa mënu koo xupp kenn mënu koo xëpp kon nag ñu ngi ñaan ñun ñëpp nag yàlla ñu tàbbal ci biiram yóbbaale ñu ci alfulkul masoon nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa def te dugal ci taalib yëpp te tàbbal ci tàbbal ñu ci àdd xaltu nafsi wa jabi wa jami ahli fi jaybi afdali wara bi fadli wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu